jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen ay seetaan émission bii di biir réew mi dala nag jàmm fi nga xamante ni moom mooy euh, comme ni ñu koy defee euh, saa su nekk ñu dellu siwaat si seen plateau ngir ñuy waxtaanee euh, lépp li nga xamante ni moom moo concerné biir réew mi comme ni ñu koy waxee saa su nekk ci ponk yëpp comme ni ñu ko defee rek jamono jee weesu waxtaan ci wàllu actualité ren nag dañuy daal di muy bis bii dañuy dellu ci li nga ni moom mooy lii di politique daal di koy actualiser ak li nga xamante ni moom mooy wàllu politique àndee ko ak euh, bii di euh, ànd euh, taxawu yëmbal ñu war cee dalal nag ñaari membre yoo xamante ni ku ci nekk yaa ngi dox sa ci côté ba nga xamante ni nga nekkee ki si njëkk nekk di Serigne Modou nekk membre bu ànd taxawu yëmbal section bu sud bi nekk professeur de français ci lycée banque islamique nekk aussi chargé de mission bu maire Bara Gaye di aussi ki nga xamante moom mooy Diankou Diaw nekk membre membre plateforme aussi ànd taxawu yëmbal ca section nord nekk militant bu PDS au niveau de yëmbal sud au niveau ki ki aussi di Serigne Modou aussi nekk ci PDS nekk aussi euh, agent commercial euh, bokk aussi ci les karimistes euh, au niveau du département de Kër Massar ñoom nag ñoo nekk tey sama ay invité yi nga xamante ni dafa dal tey ñu war waxtaanee ponk yu bëree bëri bëri bokk na ci implication wu seen plateforme boobu ci biir élection yi seen gis-gis ci li nga xamante situation politique bi ci biir réew mi waaye tamit rawatina fa nga xamante ni ah, fa lañ jugee ah, choix yi nga xamante ni président Macky Sall ah, def na ko ci ay candidat waaye tamit violence yi nga xamante ni gis nañ ko ci élection yu ñuy nekk ji kaddu yi nga xamante ni Mahmoud Saleh yëkkati na ko waaye tamit dinañ wax ci wàllu emploi ak li nga xamante ni mooy wàllu éducation ku ci nekk sa xam-xam di màcc ci benn wàll waaye laataa ñu dugg ci biir waxtaan bi nag damay bàyyi sama ay invité ñu daal di ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom ñoo safoo seen émission bii di biir réew mi euh, monsieur Niang ngi nuyu baax baax. waaw ñu ngi lay fay Mor vraiment di rafetlu invitation bi ci sa plateau di nuyu waa réew mi TV yëpp di nuyu également waa yëmbal gi nga xamante ne nii fa jóge yëmbal nord comme yëmbal sud. parce que ñun bannière bi ñu ñëwee en général on préfère dire yëmbal tout court mais comme découpage administratif yi ñoom ñoo indi nord ak sud on est obligé ñu plier wu ci loolu donc euh, ànd taxawu yëmbal am na ñaari section bu noor ak bu sud ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu également euh, waa Sénégal yëpp waa réew mi ñu ngi nuyu waa àdduna ñu ngi nuyu bépp téléspectateur bu réew mi TV vraiment di la jaajëfal ci invitation bi nuyu sama naataango bi toog tamit vraiment di wax ni yàlla nu yàlla may émission wu jàmm te lépp lu war a leer fii yàlla na leeree fii te askan wi dañoo war a gindeeku dañoo war a xam di la jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf euh, Diankou Diaw ñu ngi lay nuyu yow tamit membre nga ci plateforme boobu nekk agent commercial bokk aussi si les karimistes du département de Kër Massar ñu ngi lay nuyu baax a baax. waaw euh, merci mon frère Mor maa ngi leen di ziar di leen gërëm te di leen sant euh, te di leen encouragé et puis am mbégte ak contentement si invitation bii ngeen ñu invité tey Euh, si tuuru at yi muy ànd taxawu euh, yëmbal muy benn plateforme boo xam ni euh, ñun ak suñu ay naataango ñoo toog ab bés rek daan ni wax dëgg yàlla nous devons donc défendre li nga xam ne mooy suñu territoire dafa am territoire bu bees bu ñu nekk parce que dañoo détaché si Pikine département bu Pikine yóbbu si benn département bu bees ñu tuddee ko département de Kër Massar bi mu demee nag ñu ne ah, wax dëgg yàlla donc pouvoir bi bi mu fi ñëwee pour département gisoon na ay jafe-jafe moo moo fa nekk. Euh, pour faire plaisir a quelques politiques donc mu tas ko def ko un département euh, euh, muy Macky Sall moom. kon na comme ni ko frère bi waxee muy suñu frère Modou Bousso moom mu dëkk Yëmbal Sud man ma dëkk Yëmbal Nord ñu ancré wu si benn parti bu ñuy wax le parti démocrate sénégalais secrétaire général bi nekk suñu frère secrétaire général muy maître Abdoulaye Wade ñu am fa aussi benn candidat boo xam ni pour ñu koy préparer 2024 muy Karim Meïssa Wade et je pense que ñuy liggéey man si wàllum euh, karimis yi mais maa ngi bokk aussi ci section bu euh, Yëmbal xam naa ni pour euh, leeral rek donc foofu laa mën a yem en attendant donc question yi ñu jëm a xam lu ñu ci répondre ñu buñ ko mënee ñu wax ko buñ ko xamul aussi ñu ñu xam ni xamuñu ko. jërëjëf donc yaakaar naa liñ fi waxtaanee yëpp am ngeen ci xam-xam am ngeen ci li nga xamante ni moom mooy seen xalaat ndax dañuy waxtaan euh, si euh, implication bi nga xamante ni seen euh, mouvement boobu di at yi am na ko ci jamono ji wàccaayu élection yi nga xamante am nañ ko waaye aussi seen taxawaay ci yëmbal bi nga xamante ne lañu la nekk en parlant de yëmbal ba ñu wax yëmbal nord yëmbal sud ba daal di koy rek ci yëmbal donc at yi bu ñu leen mooy defal benn genèse ñaata at la amagum ci jamono ji ci li nga xamante ni moom mooy seen taxaw waaye ci biir yëmbal laataa moo dugg ci wàllu politique bi. voilà merci beaucoup euh, Mor donc euh, Ati pour rappel mi ngi signifier ànd taxawu yëmbal alors ànd taxawu yëmbal boobu nag dafa am ñaari section nord ak sud parce que maa ngi la koy wax léegi découpage administratif bi moo indi loolu depuis 1996 découpage boobu tamit di découpage boo xamante ne nii sax ñun déjà ànduñu si. parce que découpage bi boo ko xoolee bu baax di nga gis ni Yeumbeul Sud a été totalement sacrifié boo xoolee Yeumbeul Sud benn band su ndaw la nekk rek ci biir Yeumbeul noor daanaka daf ko phagocyté loolu yaakaar naa ni war nañ ko corriger waat te ñun yaakaaroon nañu sax avec projet de départementalisation bu Kër Massar bi mm. dinañ corriger loolu mm. mais nag ñun waa yëmbal du ñu bàyyi parce que loolu suñu combat la. ndax combat bi koy mënee ngi koy mënee te fépp fu nga xamante ni war nañ fa dem ñi ngi fay dem lépp li nga xam ne war ko def ñi ngi koy def te incha allah rabbi euh, combat bi dafay dafay doog a door. Hmm. dafay doog a door et ça continuer donc at yi loolu benn benn la ci ay action euh, beneen bi at yi yàggul juddu lool lool yàggul juddu c'est c'est récent parce que mi ngi jógee ci discussion entre des fils de Yeumbeul Nord et de Yeumbeul Sud ci discussion boobu lay jóge aussi. pour corriger ay injustices yu nga xam parce que maa ngi rappelé at yi ñi ci ëpp c'est des membres c'est des militants du PDS c'est des militants du PDS at yi voilà donc at yi section PDS la bu yëmbal dañu bëgg a aussi ay injustices yoo xamante ne gis nañ ko suñu biir parti voilà loolu bokk na tamit ci li nga xamante ni moo tax a jóg at yi donc at yi euh, li ñu njëkkagum teg euh, euh, li ñu nekk mooy position d'alerte lañ nekk position d'alerte lañ nekk et ci kaw loolu ci position d'alerte boobu euh, récemment on avait organisé un point de presse boo xam naa invité woon nañ ci journaliste ba réew mi TV sax mm, invité woon nañ fi ñu ñëw fa vraiment liggéey fa liggéey bu mucc ayib vraiment ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu franchement à travers votre personne mm-hmm. Mor vraiment euh, kontaan nañ trop ci ci ci li nga xamante ne nii moo nekkoon suivi bi mm-hmm. après euh, point de presse boobu liggéey bi ngeen ci liggéey mm-hmm. point de presse boobu maa ngi rappelé ñu ngi ko teniroon le 3 ci liggéey boobu nekk ba tey te duñ ci jog il faut que injustice yi nga xamante ne nii ñoo nekk di dox ci parti bi que ces injustices là soient corrigées mm. parce que ñun ànduñu suñu combat c'est pas un combat de personne mais c'est un combat de principe je rappelle toujours au gars que ne ñun suñu yoon nekkul ci nit li ñuy combatre c'est des principes et injustice fépp fu ñu ko fekk dinañ ko combattre te instant bi yëmbal nord comme yëmbal sud on est en train de subir des injustices extraordinaire ci suñu biir parti. ndax loolu ndax wax nga léegi ne combat de de lan la de principe est de parti parce que nee nga la plupart ñi ci biir ay parti ñu bokk ci am na ñoo xamante ni si opposition lañ bokk wala ñoo ci biir kii parce que dañu da ngeen ne ànd taxawu yëmbal donc cela dit ñëpp la war a mën a dajale voilà. voilà non j'ai précisé tout à l'heure que ne ànd taxawu yëmbal section PDS. Hmm. waa les militants du PDS. Hmm. ñoom ñoo dajaloo seen biir de yëmbal nord et yëmbal sud. créer benn plateforme bu tudd ànd taxawu yëmbal hmm. donc section PDS hmm. waaw ci biir loolu nag la ñuy la ñuy xeex injustice bépp bu nga xamante ne nii tàbbi ci biir yëmbal dans un premier temps hmm. mais ci kanam tuuti dinañ koy yaatal ba nga xam ne dootul yem ci benn parti parce que nee la luy doog a judd la luy doog a door la day doog a tàmbali puisque la ñuy doog a tàmbali nag euh, bay day commencé ci ci wewu tànk merci beaucoup donc kon looloo tax ñu commencé ci suñu biir parti injustice yi nga xam ne ñoo xew ci suñu biir parti ñu jëm ko dénoncer déjà. Hmm. bu ñu jógee ci loolu nag après nag ñu doog jàll ci biir yëmbal ci boppam. Hmm. Euh, seen seen taxawaay ci li nga xamante ni moom mooy biir euh, biir yëmbal yow yëmbal Ndour nga nekk donc moom wax na aussi euh, jafe-jafe bi nga xamante ni yëmbal sud am na ko parce que yëmbal sud daanaka quartier yi demeewul noonu yu bëri dagg nañ ko à yi nga xamante ni moom mooy quartier Ndiayeen ak yu ni mel donc yeneen quartier yu bëri daanaka si yëmbal nord la concentré parce que da ngay dox turi boo xasee sax ba dépassé tuuti li nga xamante ni moom mooy croisement buum xam nga lan buum ñu ne la yaa ngi biir yëmbal noor donc yow mi nga xamante ni côté boobu nga nekk ndax euh, euh, gis nga loolu nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nga xamante ni Yeumbeul Sud teg nañ leen ko euh, te dara def ko lu dul genre découpage boo xamante ni du ma ñu wax découpage partisan la. waaw mon frère comme ni ko suñu frère bu waxee si ay xaw si Yeumbeul mu doon village ndax village doon bu mag moom la gars yi tas ni si acte yi ba diviser ko presque en yëmbal Nord Yeumbeul Sud ak Kër parce que yëmbal dafa jiitu donc yooyu yëpp ngay dégg nii suñu frère bi di ko wax nii. donc bu ñu waree jóg si benn plateforme ànd taxawu donc yëmbal donc on parle de toutes les injustices yi nga xam ne tey jii euh, mi ngi déroulé si plan bi ñu xam ni ñun fa la ñuy tund fa la ñuy jógee et vous voyez même émission pour ñëw fi dañoo retard parce que ni mu jegee fii noonu la ñuy soree parce que embouteillage yi li koy waral mooy république yi fi jaar de 1960 euh, ba fii Macky Sall toog c'est manque de respect des population parce que jàppee nañ ni euh, population yooyu duñ ay population yoo xam ne soxlawul la dul Euh, élection ñëw ñu yóbbu leen ñu voté leen après kenn ku nekk dellu fa nga toogoon. moo tax euh, suñu rôle ay alerte mooy euh, dañoo war a jàpp ni population bi ni mu bëree macha allah foofu cër lañ leen war a gën a jox ko soxla leen pour ñu leen di indi si di sànnil ay carte e je pense que comme ni ko professeur waxee moom xam nga jàngalekat la nekk nekk yëmbal alors que si on parle yëmbal les gens pensent que c' est du banditisme wala affaire donc yan yóbbu wala leneen ak leneen. kon nañu jàpp ni foofu man comme ni mu man mii li laay laa génnee. kon kenn ku si nekk si ñun am na fu mu jaar donc banlieue bi gars yi tuut bi ñu ko jox si affaire banditisme politique alors ko loolu amul kon nag tey moo tax ñu taxaw pour arrêter toujours que ni jeunes yi nañu yeewu mhm. ñu bàyyi politique politicienne boobu nit ñi daan ñu jàngal ñu war a xeex ñu war a yàq ñu war a lakki mhm. ñu xam ne nous sommes des réfléchis alors que la base ak ay nit dañ leen soxla pour ñuy réfléchir pour développer mhm. kon nag suñu ay communes yooyu ñu xeex pour ñu développer pour ñu développer faaw ñu yeewu moo tax at dafa taxaw foofu pour au moins mesure d'alerte d'éveiller les population wax leen suñu yaay yi nañu bàyyi rek ñu leen jox ay yëre ñuy dem alors que xaalis boobu ñu leen di jox suba état bi ak ña nga xam ne aussi ñooy politique yi fa nekk euh, suba dañ koy jariñoo si d'autres fins kon nag ah, mhm. ci ci loolu mel ne da ngeen ne euh, da ngeen bëgg nekk benn genre Euh, alerte ngir mën a euh, ñaax nit ñi mais est aussi loolu euh, da desee si ay ñaax est-ce du jër aussi ngeen def action yoo xamante ne xam ne lii waa at yi ñoo ko def mais à ngeen gën def point de presse affaire est-ce que loolu la loolu loolu la population Yeumbeul wax ne lii mooy lii moo graaw lii moo nekk alors que ñeen xaar ci ay action yu mel ngeen def dara loo xamante ne askan wi dañuy gis seen bopp ndax loolu yéen yéen ciy dox Euh, pour vous montrer pour vous dire que ce monde même Dieu qui a créé euh, la terre dafa indi benn euh, téere wala mu indi benn bible pour nit ñi di si référé wu. parce que nit ñi du ñu dem sans référence référence dafay tax muy sa tolluwaay pour nga am ay mesures ay dem mesures pour éveiller nit ñi d' abord parce que il faut que bala ngeen nekk une équipe pour gagner il faut que mu am ay préliminaires yoo leen war a nekk. muy ñu def ay enseigne ñu wax nit ñi donc capacité bi nga am tey jii si suuf. ñu waroon ko am yeneen di jariñ mais gars yi ñoo ngi koy jël di ko jaay di ko dëkk di ko dëkk ak di ko di maye. Mm. donc bu nit ñi yeewul si ñu xam ni dëkk yi dañu leen war a donc respecté si suuf yi ñu yor ñu am ay école wala ñu am ay centre wala ñu ay hôpitaux je pense que nit ñi faw ñu wér jàng pour mën a am lu ñu tal parce que pour nga liggéey pour nga jàng faaw nga wér mais dañoo am ay problème la banlieue ak li mu am si ay nombre yëpp vous voyez ku fajar ku. ku am rendez-vous hôpitalu Fann a feneen donc xool heure bi nga war a mën a jóg jiital yëpp à 4 heures 5 heures de matin pour accéder fii ay 8 heures kon ñun li ñuy xeex yëpp mooy je pense que dañoo war a delloo donc population bi si si nombre bi mu toll ñu jéem leen yee ñu nit mais ñu xamal état aussi ni ko bu leen nit ñi dee jàppale pour ñuy falu au coût de milliards ñu koy delloowaat si base bi quoi moo tax bala ñuy def dara ñu am si lu ñu référé wu di leen wan ne lii ak loolu la yeneen nit yi def ba dem. kon ñun war nañ mën a jaar si loolu. Mm-hmm. bloc boobu mu nag bu mooy suñu première conférence de presse bi ñu def a cotisé dama ñu xaar kenn pour nga dafa cher ça peut nous coûter vers les soixante et quelques mille donc nous allons cotiser de nos propres moyens pour nga pour nga être si libre être dépendant de toi-même. Mm-hmm. kon nag si loolu la ñuy wax wax nit ñi nañu tàmm di financer seen ay programme su ko defee nit ñi mën leen jox cër loolu bu ko defee kenn kenn yee ñëpp yombul. ndax boo gisee même ñu jàng ñu bëri yeew parce que jàng ak yeew bokkul ñu on va essayer de sensibiliser population wax leen ni kat ñun ñoo war a défendre suñu ay communes suñu ay territoire pour au moins état yi mën leen respecter parce que duñu la jox cër tànk joxoo sa bopp cër. doo sa bopp cër mu nekk lu am importance mais man li ma li ma jaaxal moom mooy yéen section euh, li nga xam ne mooy PDS ngeen wax donc boo xeex yéen xeex lu ci mel ne euh, problème télé bi nga xamante ni am na fa muy télé bi ñu digoon ne dina am foofu si yëmbal muy euh, deux fois deux voies ba léegi pareegul yéen télé yi nga xam ne commencé woon nañ ko gis ne même fekkee sax ki nga xamante ni mooy le ministre Abdou Hott keroog ci seen lël boobu ñu ko doon def nee na dinañ ko tàmbali ci ay fan yu néew donc ndax jàpp ngeen ne yéen boo leen ñëwee rek ne ànd taxawu yëmbal ñëpp euh, euh, ubbi seen bët ngeen ngeen teg si section yi section PDS donc est lu tax sa état bi xaw a banque loxoom ne ñi ànduma ak ñoom du du mën a euh, teg loxo seen activités yi nga xamante ne yéen koy def. merci beaucoup Mor. mais li ma bëgg nga comprendre ko d'abord rek mooy dans la vie tout est contexte ça veut dire contexte bi ñu toll te ma rappeler la aussi que ne at bi ànd taxaw yëmbal bi. Euh, plateforme la boo xamante ne nii mais mais sa vient de naître defagul sax trois mois. defagul sax trois mois mais mais donc donc yëmbal yëmbal ñett ñi ñëpp ñi ngeen di bàyyi xel. waaw moo tax ma ne effectivement yëmbal mi ngi bàyyi xel parce que dañoo judd rek poser ay actes dañu juddu mën naa ni mois de septembre la ñu judd mois d' octobre ñu benn point de presse boo xamante ne nii maanaam àdduna yëpp dégg nañ ko te xam nañ fi ñu jëm. mais ma ne la sànq mbay day commencé ci wewu tànk ñun fa ñu jëm xam nañ ko. li ñu ñor mooy yëmbal ci boppam mais nag dafa fekk ni ñi nga xamante ne ni ñoo créé ati bi ñoo ko créer dans un premier temps c'est les des militants du PDS donc il faut d'abord ñu régler les problèmes yi nga xamante ne ni dañu juger que di ñun c'est des injustices au sein du parti ñu régler d'abord loolu nekk position d'alerte ba pare après doog a dugg ci question de yëmbal yooyu ngay wax parce que loolu yëpp mi ngi ci suñuy suñuy statut mi ngi ci suñuy règlement intérieur parce que yëmbal moo ñu ñor. voilà donc euh, pour rappel parce que sànq tudd nga fi léegi lu am solo mooy euh, deux fois deux voies yi nga xamante ne nii. Mm-hmm. ñoom ñoo war a jugee Kër Massar ba Liberté 6 mm-hmm. war a jaar yëmbal sud jaar yëmbal nord jaar biir yëmbal. Mm-hmm. donc bi mu ñëwee ba benn instant ci autoroute station bi dafa taxaw. mais dafa am ay problème yu bare bare bare yoo xamante ne moo tax mu taxaw. Ah. te loolu ñun bokk na ci suñu ay combat bokk na ci suñu euh, projet. de combat je dois euh, parce que foofu li ko tax a taxaw il faut nga interpeller Ageroute ñoom seen bopp ils ont des problèmes énormes parce que li commencé ci yëmbal laayeen bi. nga hmm. kër yi ne foofu euh, du ay du ay maison c'est des concessions ay ëtt la te titre d'hérédité bi. moo moom moom moo posé problème bu nganda nganda nganda boo xamante ne ni loolu mënul jóg donc ñun on est en train de tenir des réunions ak waa Ageroute ci boppam. mais loolu mënul jóg kon kon c'est-à-dire comme projet bi du réalisé parce que waa waa Ndiayeen yooyu moom duñ mës a nangu ñu jël ñu départager leen. non xam nga état day day day négocier dans un premier temps. Hmm. mais état wóor na leen ne moom moo yor force yi. Hmm. yaa ngi dégg demee ba état foqate fu mu nekk nii. bu mu demee ba mu wóor ni carrément lii mooy njëriñu askan wi yëpp njëriñu njëriñu askan wi yëpp day primer. ci njariñu une portion wu askan askan wi donc ils vont euh, forcément ñu jéem a trouver des voies et moyens pour am ay titre d'hérédité pour ñu mën leen a euh, recaser feneen wala ñu mën leen a indemniser donc loolu moo posé problème bi parce que da ngay gis benn ëtt boo xamante ne nii lu war a mat ay cinq à six familles dañ fay nekk mais boo ñëwee war a indemniser kan ngay jox kan parce que ku nekk day jot taxaw ni man la donc loolu moo nekk problème bi nga xamante ne nii posé wu ci biir yëmbal laayeen ba deux fois deux fois yooyu mënul ñëw mais bokk na ci ay projet mais pour vous relancer nekkul loo xamante ne nii euh, moom moo ñu nekkoon suñu premier point hmm. waaw ndax premier point bokk na ci li ñuy li ñuy sànni si seen kaw ne nañ seen euh, plateforme bi yëpp li mu taxaw yëpp moom moon euh, candidature ki nga xamante ni moom mooy moom mooy Bara Gaye ci biir PDS ñu bun waru koo samp mu nekk seen candidat au niveau de Yeumbeul Sud ñu xaw mu xaw am ay njuuj njaaj ci biir yoo xamante ni dañ ko dañ ko bëggoon écarter sax jamono ji écarter nañ ko donc nee loo ma taxoon sax ngeen profité rek ne taxaw ngeen at yi mais lépp c'était juste Bara moom moom moo ne buuxoon pour ngeen pour ngeen taxaw nii la pour donc euh, jàpp naa ni foofu ñiy xalaat loolu dañuy juum tuuti ndax bu fekkoon euh, Bara Gaye rek moo tax a jóg at yi yaakaar naa at yi day nekk ànd taxawu yëmbal sud. Mm-hmm. mais du nekk ànd taxawu yëmbal parce que quand di dit ànd taxawu yëmbal ànd taxawu yëmbal sud et nord la te Bara amul benn intervention bu muy def yëmbal noor bokk fa. Ah, ah, ça ne l'intéresse pas voilà. loolu tamit ma wax ni euh, li li li ñor ati mooy xeex injustice que sa soit Bara Gaye que ça soit Serigne Modou Niang ou Ndiankou ou Mor ou x personne bu fa nekkoon jëf li Bara jëf et puis ñu gis ñu nar ko sacrifier ñun en tant que. Euh, plateforme boo xamante ni dafa taxaw taxawaayu alerte dinañ jóg vraiment dénoncer injustice yi nekk foofu wax fa liñ fa war a wax. parce que nag euh, Bara Gaye tamit yow yaa ko nekk na nit koo xamante ne nii ba tey jii nii nekkul dafa génn PDS Bara Gaye mi ngi biir PDS ba tey jii. mais dàq ñu lan la il faut am lu la notifier. lu lay wan ni la wala def nañ la nangam ba tey jii may wax ak yow Bara mooy président section PDS bu Yeumbeul Sud ba tey jii may wax ak yow te li ëpp. ci biir PDS Yeumbeul Sud Bara Gaye la àndal mooy responsable des femmes ba mu ngi tudd Mariam Sylla ci télé laa toog di wax Bara Gaye la àndal responsable des jeunes mu ngi tudd Correa Bara Gaye la la àndal donc boo tuddee responsable des femmes tudd les femmes tudd les jeunes donc ñoom ñëpp ñu ànd ak li nga xamante ne ni ba tey jii may wax yow mooy président wu section PDS bu Yeumbeul Sud donc mënoo génnee nit kooku ci euh, ci biir PDS ah. donc Bara Gaye bannière PDS la demee ci coalition bi nga xamante ne nii fa la dem. Ah. alors may wax encore une fois de plus que ne euh, ati li leen tax a jóg c'est pas des combats de personnes mais c'est des combats de principe lii Bara Gaye di su fekkoon beneen x personne boo koy dundu taxawaay bii ñu am moom la ñuy am. Euh, pour dénoncer ces injustices là. donc euh, dégg nga li nga xamante ne wax na koy donc yow ban xaar nga am ci lool nga xamante ni euh, fi mu nekk nii seen combat dafa xaw a dugg tuuti ci wàllu politique parce que nee na injustice la gis foofu ci li nga xamante ni moom mooy li ñu bëggoon a teg Bara Gaye yéen ngeen taxaw en tant que. at yi wala boog en tant que euh, frère de parti bu PDS moo tax ngeen taxaw parce que foofu foofu mu leer si bopp yëmbaluwaay ndax seen xeex bi nga xam ne da ngeen ñëw pour xeex ko juste da ngeen na teggi mbalaanu at yi bi teg ko na lay ñëw en tant que part euh, frère de partie bu PDS wala da ngeen a impliqué waale at yi ci biir ndax euh, affaire de affaire de yëmbal la wala boog affaire de politique la xaw ma nag yéen yéen ba ci ban mbalaan ngeen ñëwee ngir jàppale ki nga xamante ni moom mooy Bara Euh, merci frère euh, nga poser question bu am solo euh, par rapport à un leader boo xam ni presse internationale je pense que Bara dafa dépasser territoire yëmbal si on bu fekkee dañu dem si législation politique bu parti politique ndax waat daf ko jëloon teg kese tam muy un numéro 2. kon je pense que bu ñëw nee at yi donc ànd taxawu donc yëmbal nord et sud y a un fils que Abdoulaye Wade a choisi parmi donc de nous donc les fils de yëmbal kon tey ji planification boobu ñuy wax ni ànd taxaw boo ne ànd taxaw war nga taxaw képp koo xam ne tey ji mi ngi mi nekk si yëmbal gi kon baara bu fekkee tey eh, mais politiquement tey eh, moom mu nekk doomu yëmbal war de choisir que ak itinéraire bi mu jaar yëpp je pense que bu fekkee ni eh, ñun sentiroon nañ lu yàgg ni donc am na injustice bu doon plané si kawam parce que dañoo toll si moment yoo xam il faut que les gens réfléchissent si lan ñun Karim Meïssa Wade moi ñu si bari tey li tax ñu continuer di défendre Karim Meïssa c' est parce que Macky Sall ak i équipe am dañoo ko tegoon injustice bu mag a mag a mag Sénégal yëpp xam ni lii injustice la ñun ñëpp ñu taxaw def suñu bopp ay Karimistes Karimistes pour mat c' est un défenseur des libertés. du nit ki mais ñàkk liberté bi ñu teg euh, nit ki ñu loolu la ñu xeex kon tey Baara bu fekkee dafa bokk si parti politique ñu dem si ay élections 2014 mu gagné commune ko parmi les maires yoo xam ne tey jii du ñun ñoo ko wax ñun ñu dëkk yëmbal mais état Sénégal si boppam. si seen communiqué la wax ni Bara Gaye dafa bokk parmi les que dafa def lu kenn deful si ay investi kon bu ñu dëkkee am ay CM amu fa je pense que ñu ñëw ni ko wàccal dindi nañ ko si procédure yëpp tey am na ñoo xam ne dem ñoo ko doon saaga gannaaw ñu dindee Bara mu ni ok toog na waxatul deful dara am na ñoo xam ne barki dem dañoo dindi seen grade boo xam lu ndaw a ñu bàyyi parti bi moom dafa ne ba bële bàyyiwul parti parce que bi muy lancé CM bi Sénégal gépp a toog télévision yëpp toog mun leen man xajuma si ginnaaw Macky Sall xajuma si ginnaaw ku dul Macky si ginnaaw Abdoulaye Wade ak le PDS laa xaj mais doomu aadama ju toll doon wax loolu je pense que arnaqueurs yi continue di arnaquer parce que fépp la jamono yonent bi sax am na ñu ay baar ak des hommes politiques Abdoulaye Wade y a koy bëgg a liquider c'est des fils de sa parti kon ñun xam nañ ni y a des liquidations si diine même fu dul diine kon liquidation dafay am fépp mais nag nit ku dëgg bul xañ ñu ñàkk la euh, ngir sa dëgg ñun suñu dëgg la ñuy défendre nee naa leen ñun bëgguñu daray dara lu dul la dëgg am dëgg la mooy la ñuy àtte Bara c'est un fils de sa parti wax dëgg yàlla li mu réalisé yëpp mu ni Abdoulaye Wade moo tax ma def ko maa ngi ko tuddee Abdoulaye Wade mais ku am lu def loolu mais Dakar gii y' a 19 communes 19 communes moo am Dakar 2014 y' a zéro benn benn kenn amu fi tey luy luy luy luy commune te ñi nga xeex bi yëpp ñoo ngi entre Dakar ak Ndar.

Euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci si kujje gi ci ñenn ñi xamante ne na ñoom nee nañ baala liggéey fa leen li muy wax yëpp daanaka dafa bootu ci ginnaaw leen mooy ki nga xamante sax mooy le ministre Amadou wax na ko keroog ci lël bi nee na euh, tëli kii bi ñuy wax farba bi baala naan def na ay kii yëpp ñëpp xam nañu nekk compétence mais donc day jël loo xamante ne état moom moo ko moom mbubboo ko donc ndax yéen ñi nga xamante ne instant bi euh, doo ngeen wax en tant que ay ay ay ay at yi mais da ngeen di wax en tant ay waa PDS ñu ñoo xam ne yéen a bokk mbir mi ndax yéen da da ngeen di euh, défendre ki nga xamante ni moom moom mooy bilan wu Baara parce que ñoom ku ko jug ci ñoom danaan Baara nanguwul def li nga xamante ni moom mooy débat euh, pour débat ci télé yi wax ci bilan am nanguwul wax ci lu ñu wax rek mu naan euh, sama CM bi lu ñuy wax mu ne sama sama hôpital bi nee nañ hôpital bi sax day day taa ndox wax nañ centre commercial bi nga xamante ne nee nañ keneen mu wax tabax benn partenaire mu jël mbubboo loolu lépp donc à chaque fois lu ñuy wax ñu ne ñu Baara Gueye day day te Baara Gueye bu taxawee ci kanam ci kanamu télé bi moom euh, à chaque fois mu mu ñu euh, ce sont ses donc ndax daanaka ay partenaires euh, yu invisible wala boog ay partenaires virtuels yoo xamante ni Bara da koy amadoué ñi nga xamante ni ñooy ñooy presse juste pour pour pour pour se faire pour se faire benn nom benn tour ci kanamu Yeumbeul Waay. une très bonne question mais comme nous sommes des réfléchis et que nit ay yàlla mu ni man waxal leen ak borom xel yi. je pense que bu xot waxee loolu dafa waroon interroger le président parce que lépp ay terre lépp dafa ay partenaires. bor bii Sénégal jun yëpp Macky Sall moo ko dundalee baara doo dem fukk wala benn bor am. kon kon benn si moom bu fekkoon xam na politique en tant que ministre di gérer ay milliards Macky Sall ay milliards ñu yor une république république presque ñoo ngi si presque ay 10 ans ils n'en ont rien foutu xaalisu Sénégal yëpp ñoom ñoo ko yàq ñoo ko tas di ko maye. tey moom si ban potentiel la am moom bay organiser des manifestations boo duggee si dëkk dëkk li koy àtte mooy ni ay marché hôpitaux foofu la ñuy nattee ay dëkk développement kenn du wax fan la nan lañ def. Macky Sall nu mu mën a def tey ba am comme ni Abdoulaye Wade defoon ba indil ñu autoroute à péage mais fan la ko mais mas nga gis état Sénégal ci boobu amul xaalis boobu day fay dem bi créé ay partenaires Baara kii di kii le fils Abdoulaye Wade gis fi Wade jaar si en partenariat nga xam ni partenariat gagnant gagnant li gars yi liggéey si àdduna bi yëpp muy Allemagne muy Chine muy keneen Macky Sall du fa la jaar ila ila Touba bi nu mu def. nu mu def te bora bora nga fa topp bu dul te tey ji ñu si bari tey jii yàqal na leen parce que yàkkamti ila Touba bi. moo tax mu defee ko si beneen processus boo xam ne yàkkamti pour wane ne Abdoulaye def na lii def naa lii mais tey ñaata liggéey la yàq foofu yoo xam ne tey ji Sénégalais yi ñoo koy regretté wu moom Macky Sall kon tey ji xot li muy wax ni moom xas Macky Sall lay def bu nee baar kay hôpital la fa nekk ak yëpp ay ay partenaire la wuti je pense que moom dafa xamul politique kon kooku warul sax laaj mairie parce que mairie amuñu benn budget ay mairie yoo xam ne seen budget ay 350 millions donc bu ñu amul ay partenaire dañuy def lu ñu fa construire un état du Sénégal fan kon ñoom seen ñàkk xam politique parce que dañuy ay nit ñu jàng école ñu au lieu ñu def le terrain donc ñuy ñëw di wax si waxu politique yoo xam maîtrise uñ ci dara kon li wax dafa insulter même sa république. non non ma ma ñëwaat ci tamit ci li mu moom mooy euh, a dit moom mooy. xamante ni moom mooy ay réalisation wu état donc ça veut dire que tout le ci loolu c'est c'est dafa ci li xamante ni moom mooy day day tourné ci ginnaaw loo xamante ne état moo ko def moom mu fexe ba ba kii bi ne moom moo ko def donc ndax ndax yéen da ngeen di ànd ci lool euh, kon rapidement nga kii sa waay mu après su ko euh, je pense que ñun politique la ñuy def dama ni ay territoire foofu lu fa nekk lu nekk bu ñu koy jugé quel que soit ak nu ñu ko mën a attribuer ba ba ba commune fu mu mën a yaar la bépp Macky Sall ñëw tey di investir foofu ay université donc si magistère kenn du ko nominé ku dul Bargué te li muy wax Macky Sall dëkkam bu amoon lu muy def daf koy def ak Aliou Sall mais maire ville boo xam ne réalisé wul loo xam ne tey jii Bara Gaye réalisé na boo demee département Pikine kan moo fa nekk Timbo son frère ki ki gère milliards lan la fa def loo xam ne tey jii nit mën na si teg loxo Macky bu demee ba am lu muy def lu Bara di bàkkoo daf ko doon defal Timbo ma sa Pikine wala mu def ko Aliou Sall ma sa Guédiawaye kon waxu waxu waxu sa frère la c'est des paroles yoo xam ne moom si boppam gëmu ko alors que Sénégalais ak yëmbal xam ne loolu muy wax moom waxul dëgg loolu moom. mooy mooy mooy suma xalaat waxul waaw kon ci loolu ba léegi euh, ci li ma ko laaj seen taxawaay ci li nga xamante ne mooy waayu politique bi ak euh, jàppale bi ngeen jàppale Bara son bilan bi nga xamante ne à chaque fois comme ni nga ko waxee rek waa euh, opposition bu ñu opposition laa leen mën wax parce que instant bi vous êtes yéen ay opposants ci biir miir Yeumbeul Sud te seen ministre bi léegi ñëw taxaw ne dafa bëgg laaj maire bi bu Bara Gaye donc di def ay action saa su nekk ñu gis ne mi ñu gën a fës si biir Yeumbeul donc yéen ban position ngeen am ci taxawaayu Bara Gaye ci Euh, biir Yeumbeul Sud. bon d' abord pour commencer damay wax ne euh, man je vais pas m'attarder sur des personnes parce que euh, Yeumbeul Sud bëri na ay candidats du ñaari candidats ñoo fa nekk. non benn candidat fa nekk pour l'instant. non Yeumbeul Sud laa wax. Mm, bëri na ay candidats yoo xamante ne nii ñu ngi bëgg mairie bi. Mm. muy kan ak moo tax ma ne la comme émission bi. Mm. loolu taxu koo jóg. on venu ici pour. ànd taxawu yëmbal donc man je représente la section sud mon vis-à-vis représente la section nord ñu wax ci loolu ak question yi nga xamante ni moom nga ma rapport ak euh, réalisation yi nga xamante ne ni le maire Bara Gaye def na ko fa te ñun ñu gis ni nit ku def loolu yépp vraiment nit ñi nelawuñu gëmuñu ñu ngi yegg bët di xool e dafa am benn affaire boo xamante ne ni wax nga ko sànq ñu ne Macky Sall mooy Euh, financer ses réalisations loolu c'est archi faux ay caaxaan la man mii di wax ak yow nii ki nga xamante ne nii moo financé post de police bi ñoo dëkk ñëpp xam nañ ko muy dembaka Ka donc euh, Bara Gaye ci boppam ak ingéniosité am laay wax parce que papay Demba Ka c'est un chef de quartier ci commune bi nga xamante ne nii moom la Bara Gaye jiite Bara Gaye moo gis papay dembaka Ka waxtaan ak moom mu faciliter seen rencontre mu dem ba ci dem ba ka ni ko ci commune bi nga dëkk ku ñaan ñàkk boo jëndee am depuis des décennies yëmbal mi ngi bëgg post de police yëmbal sud mënuñu koo am parce que gis nañ violence yi fay am à chaque fois bu ay rencontre de match de nawetaan amee et fii dafa war a am poste de police li mu bëgg mooy gis nañu site site bi laa bëgg nga jënd ko tabax ko ma équipé et c'est ce qui s'est passé exactement euh, Demba fils de Yeumbeul Sud moom moo jël de ses propres moyens mu jënd terrain bi nga xamante ne nii fa lañ def de police bi tabax ko Bara Gaye avec l'équipe municipale ñëw équipé ko à hauteur de trente cinq millions te tey si tey jii nii boo fa demee ñu ngi fay tegaat beneen deuxième. Euh, euh, euh, euh niveau. boo xamante ne nii dafa war a nekk commissariat boo xamante ne les fils de yëmbal ne vont plus se déplacer pour dem di wuti ci passeport wala ñuy wuti ci carte d'identité feneen foofu lañ koy defaree. donc loolu yëpp bu ci dollee ko ñu wax ni euh, euh, euh, Bara Gaye ingéniosité am moo ko yóbbu ci li nga xamante ne moom la ko son mentor Abdoulaye Wade jàngal mooy lan les PPP partenariat public privé et ci PPP yooyu ci la réaliser stade bi nga xamante ne ni mooy stade communal bi nekk en cours. Hmm. te ñu war ko inaugurer incha allah rabbi bientôt euh, ci la réaliser centre commercial bi nga xamante ne ni mi ngi ko def en partenariat avec Mokhtar Consulting construction plutôt donc Mokhtar construction boobu képp ku ñëwoon ci inauguration ba mais gis nga ko fa mu teew pourquoi Macky Sall teewu fa pourquoi représentant Macky Sall teewu fa no gis nga nit ñi nañ bàyyi caaxaan bàyyi waxu kesew kesew. mais télé bi ñuy wax nag télé bi dugg bi ko def au contraire au contraire ñeneen ñi ñoo ko accaparé ñeneen ñi ñooy mbubboo ni ñoom la te ñeneen ñooñu di mbubboo ni ñoom la ma rappelé ni tali bi bi muy nekk en projet bi muy nekk en projet en 2016 boobu ñooñu nekkaguñ dara ñëwaguñ sax yëmbal boobu ña nga alma di toog. Ah, mais ñoo bokk na ci ñi ko facilité. waaw moo tax ma ne moo tax ma ne il faut ñu ñu xam ne euh, euh, voir yi voir yi ak inondation loolu compétence yi état central la du compétence yi. Euh, municipalité di compétence mairie il faut ñu nit ñi tamit euh, revoiraat les les les domaines de compétence yi nga xamante ne nii foofu la euh, mairie ak municipalité war a intervenir Bara Gaye dafay góorgóorlu accompagner projet yu mel noonu xar tànk tubayam pour mu ñëw fa mais du moom moom mooy rëdd pour dogal pour mu ñëw fa wala mu rëdd pour ñàkk a dogal pour mu bañ faa la ma am na capacité bloqué non dama lay delloo question bi delloo ko askan bi nga mooy ministre bi ñëw na pour defar mun ne mu ne ko doo doo defar nee nañ ki nga xam ne mooy Modou Mbène doon na taal ay lampe mu ne ko lampe yi amoo droit taal ko maaxee taal mhm. donc est ce que loolu lu réalité wala boog bu ci amee ndax loolu taxawaay taxawaay maire la. merci beaucoup pour cette question vous me permettrez un peu de profiter de votre temps d' antenne. Mhm. pour wax ne demain mercredi. demain mercredi. Mhm. ku ñëw école bi ngay wax ni muy école Mamadou Madi Ndiaye. Ah. di nga ma fa fekk man. ak benn association bu tudd les anciens madistes. ñuy def. ay dons de fourniture pour l'école bi donc man je suis très bien placé pour wax ci école boobu. parce que si école bi la fekk wala li wax dëgg la. Eh, eh, eh, élèves yaa nga yaa nga centre centre centre kii euh, euh, fi xam ne mooy centre bi nekk à côté Rockbis. non man dama ne dama ne damaa bëgg. Mhm. nga may ma tuuti ma wax ni man. Mhm. personnellement je suis très bien placé pour wax ci école Mamadou di Ndiaye. Mhm. loolu def naa ci ay sorties yu bëree bëree bëri bëri. je travaille en parfaite collaboration avec le directeur de l'école tey ci suba laa mujjee wax ak moom téléphone pour wax ne école boobu élémentaire la. école élémentaire domaine de compétence su maire la domaine de compétence u municipalité la mais pas ministre. ministre bi bu amee lépp lu mu fay jëf en tant que républicain bu amee lépp lu war a jëf ci école bi dafa war a jaar ci bunt bi nga xamante ni mooy ndey ji réew di maire fa la war a jaar mais bu ko tëbee ñëw bëgg a def dara ci ci ci ci l'école bi ah loolu mi ngi outrepassé. mais mais mais mais ses compétences ak li nga xamante ni moom la war a def moom il devait donner le bon exemple le bon exemple mooy jaar fi nga xamante ne nii fa la war a jaar ñun ñii nga xamante ne nii duñu ministre du ñu dara fi ñu jaar ba tax ñu am ay responsabilité ci école boobu ba di fa dogal yenn yoo xamante ne moom ministre bi moo ñu ko waroon a gën a mën yaakaar naan bu jaaroon fi mu war a jaar na ko defar. Hmm. te boobu dafa fekk nekkul en conflit avec le maire je dafa fekk ni ñoom ñoo yëg ni. la municipalité a déjà voté un budget de plus de trente millions pour def ko ci école ba te d'ailleurs boo demee ci école bi nga constaté travaux pour def ko ci école bi ñu yëg loolu bëgg a politique politicienne ah mooy politique bu saal bi. ah mais nee daal nee ñu bëgg a def politique politicienne boobu ñu. wàññeeku ci ginnaaw ñëw fa ne dañuy def ay réalisations. alors qui est le responsable de l'établissement mais ma am moom mooy Bara Gaye dañ ko interpellé ci lu bëree bëri ci euh, yàqutee école boobu ci douche yi nga xamante ni baaxatul euh, mu noppi ba ba ko ñëw bu ko réaliser mu taxawaat ne moom boo koy defar foofu. non c'est le contraire c'est le contraire Bara Gaye moo ñëw. avec parce que budget bu ñu voté la am ay financement yoo xamante ne ni banque mondiale la jógee conseil municipal bi ñoo ko voté conseil municipal bi euh, Baragay ak ay ay membres am rek nekkuñu fa. Mm-hmm. conseil municipal bi parti yëpp sont représentants là-bas. Mm-hmm. donc conseil municipal bi ñoom ñoo voté budget boobu pour réfection école yi ma rappelé la ni euh, yemul sax ci école boobu rek gi nga am na quatre école yoo xamante ne nii école élémentaire lañ yu nekk Yeumbeul Sud école bu nekk Baragay bi mu ñëwee moom moo fa def euh, li ñuy wax salle informatique équipé ko. ay ngi dégg ba élèves yi mën a am accès yooyu defaral leen bibliothèque communale bu nga xamante ne nii ñu ngi ko tuddee le feu Waagaan Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm may wax ne donc euh, le ministre boobu ngay wax parce que man bëgguma def débat de personne moom bu fekkoon dafa jaar fi mu war a jaar ñun ñii ñoo gën a ndaw ni ñu def ba jaar foofu ba am ay responsabilité ci école boobu di fa def di fa dindi nee naa la suba mercredi képp ku ñëw euh, euh, école Mamadou Mamadou Ndiaye à 10h di nga ñu fa fekk ñun ñuy def ay ay ay don de fourniture donc loolu leer na dañu dafa am fu ñu dañoo jaar fu ñu war a jaar. ba ñu permettre loolu am on a écrit des lettres. à à à l'IEF on a écrit une lettre. ah ki nga xamante ni mooy ndey ji réew di di le maire Bara Gaye. ndax bi ndax bi ngeen lettre euh, monsieur le ministre pas en tant que pas en tant que seen seen opposant mais en tant que fils de Yeumbeul Sud. non du sama opposant man personnellement du sama opposant man képp kuy nekk Yeumbeul Sud di œuvrer pour le développement de Yeumbeul jaarale ko nag ci yoon fi nga ko war a jaarale man damay ànd ak yow hmm. mais boo ko jaaralewul fi nga ko war a jaarale man je n'ai rien à te hmm. parce que dama gis ni le ministre li mu def loolu parce que moom mooy ministre la hmm. moo tax mu def ko ndax man mënuma ko man mënuma ñëw imposé wu ci benn école wala nangam te jaaruma ci ndey ji réew ki nga xam ni mooy mair parce que nag askan bul fàtte askan nu yëmbal sud ñoom ñoo dajale seen ay kàddu dénk ko le maire Bara Gaye pour mu doxal dénk ko le ministre Amadou Hott encore une fois de plus il mu leer quoi. dégguñu ko wala dégguñu ko. dégguñu ko ko. dégguñu ko ko parce que <laughs> yaakaar naa ni mandat yi jeexagul élection yi mois de janvier la. Mm. ba fii ñu toll nii c'est le maire Bara Gaye mooy doxal lépp lu nga xamante ne nii ay responsabilités la yoo xamante ne ça incombe a un maire moom moo ñëw taxawee loolu et non le ministre. je suis désolé donc il n'est pas nekkul moom mooy sunu maire nekkul ci moom la ñu war a adressé wu donc man du ma dem ci moom. moom tey jii nii bu fekkoon moom moo nekk maire du ma dem ci Baraka ci moom laay dem mm. mais nekkul maire man je m'adresse au maire. Mm. yàlla dogal na nag nit day nit ku baax da nangu dogal yàlla. Mm. Baraka mooy maire bi. yaa ngi donc ci moom la ñu dem def lañu ñu war a def loolu la ministre bi waroon a def mais defu ko donc kon damay jàpp ni kii moom moo jalgati yoon et c'était lui moom moo waroon wone vraiment yoon. moo waroon a wane moo waroon a yoon pour nekk un bon citoyen si wàllu citoyennisme boobu ñu jëm ci wàllu ay élection euh, ci choix yi nga xamante ni ñu ko def ci euh, wàllu candidat yi euh, ki nga xamante ni moom mooy Bara Gaye mu mel ne du demee ci bannière li nga xam ne moom mooy PDS donc yéen ngeen doon xaar moom mu taxaw mu porté seen ay candidature ci biir PDS donc yéen ban gis-gis ngeen am ci loolu nga xamante ni mooy écarté nañ ko ngir mu daal di topp ki nga xamante ni moom mooy moom mooy dogal bi nga xamante ni waa PDS def nañ ko waaw qui par de localité parle donc des empreintes ñi nga xam ne ñoo fa nekk si localité bi. et Abdoulaye Wade yàgg nañu wax ni euh, localité affaire locale bi la c'est-à-dire nit ñu bees ñi léegi euh, politique bi dañ ko xamul te souvent ñi ñu jox pour ñu diri suñu ay politique ñu si bëri duñu ay homme politique ñu si bëri la parce que loolu mooy loolu mooy le problème du PDS actuellement. Mm. parce que dañoo jël suñu benn euh, frère ñu jox ko mu yor wàllum structure yi te wàllum structure comprendre ko te mënu xamu ko. c'est-à-dire pour nga gérer dara faw nga xam ko faw nga xam ko faw nga jàng ko faw nga ànd si euh, je vous dis que moi ba léegi maa ngi si PDS 95 maa ngi jënd sama carte kon avant Abdoulaye Wade même muy accéder au pouvoir moi j'étais militant donc de ce parti ñu euh, nekkoon si parti bi ñëpp daani ko parti bi ko dat donc na loo xam ne Wade c'est un démocrate la démocratie am lu mu si bind am si wax moo tax boo ko gisee yii yëpp gars yi di wax fii Wade du si wax moo baara moom mooy wax wala keneen mooy wax parti parce que PDS dafa am nu ñu siy duggee ak nu ñu siy génnee dafa ni lii législation texte parti bu wax lu lay dàq si parti mooy man jànkuma organise sam beneen parti am naa parti bii man maa ko moomal sama bopp mais empreinte locale comme coalition wallu ak yeneen coalition yi ni demee ma masul dégager parce que dafa ni dañoo dem si monde boo xam c'est le monde des grands ensembles dafa ni dafa ñu doon wax sax ñoo dem te bu ñu demee sax am na milieu yoo xam ñu fa demee mu wóor ni dañ nañu ànd ak ña ña mais bu ñu demee ba tey ci am diversance boo xam ni c'est des c'est des yoo xam ne moi je xam naa leen bu baax a baax ñoom ñoo bëgg diviser donc yàq parti bi donc neexu ñu bëgg créer benn ossature parce que je pense que ku mel ni Baara bu ko parti bi waxoon ni ko yow yaay maire wala yow lañ yow yaa ñu représente comme ni mu defal ñeneen ñi assuré ko je pense que kon dina dina jël assurance mais tey jii ba fii ñ toll ma tey tey defe naa la ñuy fermer kii. te ñu si bari jot jotagul seen ay entre yëmbal nord ak yëmbal sud kon Bara Gaye tey ji bu toogoon doon xaar li gars yi doon def noonu je pense que dañ ko doon suul parce que li ñu def yëpp mooy dem nañ si ab Ablaye Wade donc di ko di ko sosal ah Wade au moins ay texte la gëm Wade dafa dafa dafa il est démocrate bi boo leen juróomi nit ñett ñi ni ko ah dëgg yàlla kii daw ñëw wàcc ko ñaan ñi ko déedéet Ablaye da lay wàcc dafa ni en démocratie donc loi de majorité moo fay dox mais bu fekkee ne part da nga si bëri ay ay noonu fépp la nag muy jàkka jeeg ñëpp da ngay gis imam boo xam sañu tey wàcce ko six ak ay homme politique li mu waroon def tey man pour man ñoom fii mu nekk nii en tant que fils mu ni ma doomu ab Abdoulaye waat la PDS lay représenté ay nit si localité bi bokkoon si yeneen parti ni ko ñun de amuñu benn leader boo xam ne fii war na fi mën a taxaw bu mën a gañewaat fii alors que ñun ñun ñëpp ñun ñoo dem làmb taxaw sa ginnaaw à part muy muy xot boobu ngay dégg te xaw ma fu mu xotee bi mu xotee yàgg parce que mi ngi jugee ay almade donc bëgg parce que ñoom jàpp na ni banlieue bi donc ay ay xar lañ wala ay ay nag lañ ba heure bu leen neexee dañuy ñëw rek pour pour am gratu mère ñuy baat fa ñuy topp alors que ñun les fils de la banlieue qui habitons la banlieue di dund métti yooyu ànd ak sareet yeeg fas yéeg yëpp di dund foofu ñoom ay ka xamuñu lii ah duñ ci fanaan duñ fi topp ils sont là que pour tromper ce peuple mais Bara miy toog mu dëkk bi ànd ak waa dëkk bi di toog ak waa dëkk bi je pense que et puis def fa loo xam ni apéro Pastef euh, Piro ñëpp ñoo ko Bara yow lii ngi fi def ñun on est Mais si des gens donc, font des participations politiques pour au moins le juger d'or, donc à de prendre ses responsabilités. Parce que c'est un homme politique. Ablaye ni ñu ko defoon mu mënee ba dem en 2000 si ay grands ensembles par si grands ensemble yooyu la bëgg commune bi. wan leen ni wax dëgg yàlla commune dafa am ay ay ay ay réalités yu fa nekk. alors que am na ñu fa nekk muy doom parce que ñi ñoo gëm ay couleurs de parti. mais les couleur ay baise moro jàkka ji mi ngi nii kan moo fi gën a jàng ñu ne ah Bousso de moo mën a tari saar mais bul ni tijaan rek bu mu nekkee tijaan te mënul tari xulu ala ngeen bëgg ñu xam ni bu natt parti yi nañuy natt les cerveaux de sa parti wala nit yi baara bu amoon keneen ku ko ëpp doole ëpp ko xam-xam te nekkul si PDS nekkul si feneen dañoo war dem sànni ko ñu dàq ko bu defoon dafa def lu baax dañ ko war dàq man politique boobu laa gëm nit ñi foog ñu yeewu xam ni les partis politiques hmm. am sa xaalis nga jënd ay carte am ñoo tax nga nekk leader politique boobu nag baaxul nañuy wax nit ñi ba pare ñuy jëf après nit ñi mu leen topp si loolu que man politique boobu laay digal bépp sénégalais ñu ni bu ñuy def le choix bu ñu choix ay PDS nekk ak wala feneen nañuy choix les meilleurs hmm. parce que c'est c'est c'est aux

Euh, frère de parti Bara Gaye euh, fera le poids devant ki nga xamante ni moom mooy moom mooy a Hott. moi je dirais plutôt est-ce que ñeneen ñi ils feront le poids devant Bara Gaye parce que <laughs> ñeneen ñi qu'est-ce qu'ils ont fait. Bara au moins il a eu le mérite dafa réaliser ñu teg ci suñu bët gis. Mm. te encore une fois de plus. Euh, PDS dafa am lu fa xamante ne nii moo fa nekk il faut ñu dénoncer ko encore une fois de plus gars yi dañu allergique numéro deux dañu allergique numéro deux. Bara Gaye deful dara dara dara lu dul il a été victime d'être nommé numéro deux du parti bi ko Ablaye Wade falee loolu la faucon jóg gars yi commencé jëfur amatuñ jàmm ndax nag Ablaye Wade da ko defal loo xam ne defalu ko kenn ci parti bi dafa jël bureau ba nga xamante ne ni moom Ablaye Wade rek moo ko daan occupé mu woo Bara Gaye mu jël clé caabi bureau yooyu jox ko ko bi mu jëlee caabi bureau yooyu jox ko ko gars yi loolu lañ mënatul woon digérer Euh, Bara Gaye gëm gi mu gëm Ablaye Wade tax na lépp lu mu mës jëf biir Yeumbeul Sud da koo askanale PDS amul lu mu jëf biir Yeumbeul Sud loo xamante ne askanale wu ko PDS génnul PDS musul taxaw fenn ni damaa génn PDS ba tey ji moom mooy moom mooy euh, euh, président section PDS bu Yeumbeul Sud donc kooku ngor googu rek ngor googu rek mu ñu wan ñun tax na ñu ànd moom rawatina nag mu ñëw tegal ñu ay réalisation yoo xamante ni nii boo si jël mu gën a reluisante bi topp ci moromam ci kaw euh, coalition yooyu ngay wax Bara Gaye bu toogoon ba heure bi demul ci coalition vraiment il serait ignare kon li ko Ablaye Wade di jàngal ci politique yépp kon tariwu ko mais alhamdulilah man laay wax bi nga xamante ne tari li nga xamante moom la ko Ablaye Wade jàngal fee yan yan coalition représentative ñoo fa nekk fee Benno Bokk Yaakaar moo fa nekk Wallu moo fa nekk Tekki moo moo euh, Yewwi moo fa nekk mm-hmm. alors et nous savons très bien que wàllu ñenn ñoo fa nekk tekki moo fa nekk bu mu bu mhm. euh, euh, euh, de croix parti de croix bi ñoo fa nekk ak ak ak bokk gis-gis ñooñu ñëpp amuñu ay représentant biir yëmbal amu ci kenn koo xamante ne am na biir représentant biir yëmbal ah donc ça je dis je je dirais plutôt que le le, le wàllu n'est rien d'autre qu'une coalition squelette dans Yeumbeul Sud alors que toute l'opposition radicale est dans Yewwi opposition radicale boobu nekk dans Yewwi est composée de quatorze formations politiques et toutes ces quatorze formations politiques ont accueilli mais mais à bras ouverts la venue du maire dans la coalition et li ko prouvé mooy démb démb liste bi génn na spécimen bi génn na ñu jël Bara Gaye def ko mu nekk candidat coalition euh, euh, euh, Yewwi bu bu Yeumbeul Sud ñu xam ni coalition Yeumbeul Yewwi boobu a des partis très représentatifs lu mel ni PUR ku ko tudd xam ni opposition radicale la lu mel ni Pastef ku ko tudd xam ni opposition radicale la lu mel ni Taxawu ku ko tudd xam ni opposition radicale la et j'en passe ñu fi nekkoon di cité fi la ñuy donc ñooñu ñëpp ñëw rangé wu derrière le maire grâce à ses réalisations nag grâce parce que duñu ay dof dañoo rangé wu derrière le maire jox ko bopp grâce à ses réalisations yi dama ci cité quelques-unes rek yoo xamante ne ni mënul ñàkk dañuy jël par secteur wax naa sànq si secteur sécurité bi post de police bi fa def macha allah Euh, match navétane bi passé bi entre Farba et Natangué n'eût été l'intervention des policiers on compterait des des des morts d'hommes donc ñu ngi remercier les hommes de tenue ci cette intervention bi ñu def ñëw taxaw monument Farba nekk fa ba deux heures du matin man maa ngi taxaw def fa ay intervention yu mucc ay donc loolu poste de police boobu rek war na tax ñun waa yëmbal ñu joxaat bopp Bara Gaye bi ci des li ci des. mooy collège collège collège bi nga xamante ne nii. collège bi nga xamante ne ni vraiment c' est un joyau qui est venu alléger mais mais tous les problèmes de la de la population yëmbaluwaase. collège bu mu tuddee Imam Sakhir Gaye. ay te ñun. gars yi dañuy woote ba Canada dañuy woote ba USA dañuy woote ba France fu nekk di wax ni waa yëmbal vraiment gàcce ngalaama Baara Gaye sigil lañu waa kooku waa yëmbal bu ñu ko joxul bopp. xanaa waa yëmbal dañoo wéru. waaw mu mel loolu lépp bëggoon nañu ko waxtaan mais moo daal di euh, jeex rek donc euh, nga daal di tàggatoo ak ñi am parce que ñàkk ñu daje ñu dajawaat fii benn émission yu mën a bëri bëri parce que desewoon ñaari poog moo ñu ko euh, matewul donc lan ngay tàggatoo ak ñi nga xam ñu ngi sant merci beaucoup Mor vraiment di la nangul loolu parce que xam nañ ni kii di télé ci waxtu la ñuy liggéey ak temps donc ñu def lu dul rafetlu invitation bi nga ñu invité. Euh, vraiment di wax ni di duuf ci nag di xajul ci cin li parce qu'on avait beaucoup de choses à dire surtout réalisation yi nga xam ne monsieur le maire def na ko muy 22 réalisations si déw ma ci quelque temps bi xoj ñu donc di rafetlu sa invitation di wax tamit nii gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ni yaa ngi koy liggéey ci banlieue bi franchement loolu su ma ko waxul woon fii tey bi duma ma kor man maa ngi lay gis man personnellement manifestation bu am déplacé wu ak say propres moyens ci écoles yi ci ci inondation ci ci ci ci point de presse yi des fois duñ la sax duñ la sax jot pour yëgal la ko mais yow yaay déplacé wul sa bopp say propre moyen loolu vraiment maa ngi euh, je je me permets quand même ici de le di wax euh, fii nga nekk di liggéey muy Rewmi TV nañ la gën a dooleel. dañ la gën a dooleel parce que gis nañ liggéey bu mucc ay bi nga def ci banlieue bi banlieue bi journaliste yu mel nii lañ soxla bu amoon ñu mel nii yow ba léegi banlieue bi vraiment romb na fii di jaajëfal waa yëmbal yëpp di ah, li ma jàpp mooy doxalee. kenn am Bara Gaye mu nekk nen bu ñu baxal nga di ko seetaan ba muy laal suuf di xajam nañ ko àcc ca kaw delluwaat ko mairie bi wasalaam. nga tàggatoo beneen parce euh, jeex na. waaw heure bi jeex na donc li may wax rek muy solution bu Sénégal euh, muy ni euh, Macky comme ni ko Sare waxee rek laa bëggoon dool yi pour tàggoo muy ni bu ñu ko sanctionné wul donc dina jëm troisième mandat kon à ce peuple donc de réfléchir parce que Macky Sall waxoon na day def ñaari mandat et je pense que bu fekkee dafa bëgg un il faut déjà le freiner à ces élections donc loolu laa amoon lu muy tàggatoo di leen ñaanal yéen ñëpp en tant que jeune journaliste ak gars nii wax ni Sénégal ñu ñoo ko mën a defarandoo si dëgg si tey ak si bëgg fu xam fi ñu jëm comme le pouvoir de yëpp te loolu nag kon jërëjëf mon frère. voilà euh, ni moom moo doon euh, tëj li nga xamante euh, bi si violence li nga xamante ni mooy propos yu Mahmoud Saleh mais temps ki nga xamante ni moom mooy Serigne Modou Niang bokk ci PDS nekk aussi membre bu ànd taxaw yëmbal section sud nekk aussi professeur de français doon dalal aussi ki nga xamante ni mooy Diankou Diaw nekk aussi membre plateforme boobu. di ànd taxawu yëmbal euh, moom nekk section bu nord nekk militant PDS aussi nekk karimiste au niveau de euh, Kër Massar euh, fi nga xam mooy département bi au niveau de yëmbal nord moom nekk aussi agent commercial donc ñu doon leen rafetlu liggéey bi nga xamante ni def nañ ko fi waxtaan bu am solo bi leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéenee si taan saa su nekk seen émission biir réew mi di jaajëfal sama équipe technique bi nekk ci ginnaaw moom moo ak xamante ni moom mooy Zubayri ak nga xamante ni moom mooy Malick donc leen jaajëfal leen jox invité euh, fii ci Rewmi TV seen émission bi réew mi jërë ngeen jëf